jële nañ ci suñu sang abu hurayrata yal na yàlla gërëm ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qaal naka sayiduna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax na ida tashahada ndem taayana ahadukum kenn ci fal yasta'iz na muslu billahi yàlla min arba'in tukkee ci ñeent bu kenn ci yéen jullee ba yegg ci taaya ba taaya ba noppi taaya mooy attaxiyaatu lillahi ba mu jeex def salaatul ibrahimiya bu sottalee fal yastaiz billahi na muslu yàlla min arbain ci ñeent na ñaan yàlla musal ko ci ñeenti yëf yaqulu day wax allahumma inni acuudu bika min cadaabi jahannam yow suñu borom maa ngi laa muslu ci mbugalum jahannam wa min cadaabi alqabri ak ci mbugalum bàmmeel wa min fitnati almaxya ak ci fitnaay dundu wal mamaati ak fitnaay dee wa min charri fitnati almasixi dajjal ak ci ayu fitnaay masiixu dajjal rawaahu muslim hadis ji muslim moo ko solo ñeenti mbir a ngi yoo xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dénk na ku ne ci ñun mu di ci muslu saa julli su taayaa ba noppi na muslu ci ñeenti yi bu ca nekk rek doy na di fitna doy na di mbugal dañuy wax ne bàkkaar tolluwut ni kéeféer ak shirk waaye mbugal tolluwut ni jahannama yal nañ ci yàlla boole musal mbugalum bammelit luy am la benn borom di yéeféer mbaa mu doon ab jullit bu am lum def yàlla mbugalee ko mbugal ko ci bàmmeel bu ko neexee setalee ko ci bu dekkee dem aljanna mbaa bu dekkee mu yóbbu ko safara ba sob yàlla mu yóbbu ko aljanna yal nañu yàlla boole musal ci mbugalum bàmmeel ak mbugalum safara fitna dund ak fitna yi dee ku ne gis na ko fitna yi dund lépp luy dox sa diggante sa boroom ci àdduna rekk fitna dund la ak yeneen i fitna yu aju ci yeneen i yëf fitnaay dee ba ca gën a métti mooy liggéeyu seytaane taxaw ci kanam jaam bi ngir génne ko ci diine ji léeg-léeg sax mu ñëwee ko meloo way juram yooyu nag bakkan def ciy participer ndax nit ki na mu daan dundee dana euh, répercuté wu ci moom yokk fitnaay deeyam ba bu moytuwul dee ci kéeféer wala iyaadu billahi masiixu dajjaal nag <clears throat> yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne amul benn yonentu bu fi jaar waxut aw xeetam fitnaay masiixu dajjaal wottandiku loo leen masiixu dajjaal mel na ni système am nag mi ngi fi yàlla nañu yàlla musal ci ayam te bu génnee nag néew na kuy mucc ci ayam ndax yiñ wax ne moom la amee ci pouvoir yépp ñi ci amee tuuti nit ñaa ngi leen topp tey gis nga nit ñi ku ci xëy dem ci xërëmkat dem ci seetkat dem ci horoscope dem ci nàngam foog nga ne kon masix dajal mi ñuy wax ne dafa yore xaalis ak alal bu judul jeex yore nguur goo xam ne kenn xamul num toll dégg nga yore lu mel ni aljanna yore lu mel ni safara mën a tawloo taw bi mën koo taxawloo mën a womalal suuf si mën koo bekkoor bekkoorloo loolu yëpp yàlla jox ko ko ci kàttan ngir nattu ngëmu jullit yi tey jii nga gis jullit yi ñu ngi jëm ci ñu dul yéeféer mën a def lu nekk ngir am la ca seeni loxo bu dee sax dañ koy jaayee seen diine kon bu koo koy ñëwee nga xam ne nguuram ak dooleem doole yi ñi ci àdduna bi tolluwut ko tolluwut dooleem mm, dara dollu maanaam boo ko comparé boo yi ñi ci àdduna bi ak doole yi kooka doole yi ñi ci àdduna bi tey du dara te kooka nag dana dikk ñu ñaan yàlla mu musal ñu ci ayu yi fi ne tey ak ayu kookee yonentu nag dana wax ne kuy jànga suratul ka wax na sax fukki aaya wax yu njëkk yow la yu mujjee yàlla dana la ci musal waaye nag borom na seetantal li aaye wax te jëfandikoo ko <coughs> euh, ma ngay feeñ ca suufuy Cham ca baytul muqaddas ca Palestine euh, ca baabu lëdd la ko Seydina Isa di rayee wa anna Isa yaqtulu dajjala wa euh, naam wa anna isa yaqtulu dajjala la borom ashalul masalik wax wa fatxi yaajuuja wa xasfin wa ala naarin tasuuqu nnaasa arda alxashri wa fitnati almaxyaa wa dammi alqabri yooyu yëpp ci yi eh, nekk ci buntu yowm alqiyaamati ak yowm alqiyaamati la aju sidna isa moo koy rey moo tax déggee ñu naan Seydina saa ngi fëleeg ma nga fële yooyu caaxaan la Seydina Isa dikkagut ndax du dikk fekk Masiihu Dajjal dikkut mook Mahdi yo duñ dikk fekk Masiihu Dajjal dikkut mm. waaye nag àdduna moom suuf si dafa nangu loo fi ji mu sax loo wote rek nit ñi topp la ci nañ yàlla defal tawfiq ba ñuy topp mbaax daal sallallahu ala sayyidina muhammadin